Thank you. Euh, ñi ngi leen nuyoo fi nga xamante ne moo di hôpital bu Ndaamaatu euh, li nga xamante ne ni tey maanaam euh, moo ñu fi indi woon nag bokk na ci ab accident boo xam ne ma nga xewee fa nga xamante ne ni moo di yoonu xel xom boo demee bay tolloog fi nga xamante ne moo di ngay maam ball benn oto camion boo xamante ne ni ki ko yoroon xëy na ay atam maanaam ëppul fanweeri at moom mi le oto bi mu mel dafa am ay moto yoo xam ne moom la doon moytu ba oto bi mujj daanu ñu ci bëree bëri maanaam am ci li nga xamante ne moo di ay gaañu gaañu sapeur pompier national jël leen ñenn ñi ñu indi leen fi nga xam moo di hôpital bu Ndaamaatu ñenn ñi ñu yóbbu leen fi nga xam ne moo di hôpital bu Janatu gis li nga xamante ne nii ci ñi nga xam ne bokkoon ci bili oto ay kilifa yoo xam ne ak ñoom ñoom ñi ñëpp incha allahu rabi danañu siq ak ñoom li nga xamante moo di waxtaan ma ànd ak sama caméraman incha allahu rabi ci kanam waaw ñoo ngi lay fay xanaa di sant yàlla di julli ci yonentam alayhi salaatu wasalaam di sant sëñ Touba mbir mi nag lii dafa doon bokk ci eh, li ñuy wax laase Euh, euh, euh, sakku ci ay ñaan ak yooyu waaye jëru ko ndax Sëñ Tuubaa moom ku koy liggéeyal ku ne loola ca dab lu war nga koo santaat sa borom te xam ne loola da caa bokk su ca bokkutoon du yegg si. mbir mi moom ndogal la ñëw na ñëw na oto bi ay sept la fa jóge comme ni ko sëñ Sam waxee rek ba muy dem it ñi nga xam ne ñooy jiitee mbir mi nee nañ ko ndànk-ndànk waaye mbir bu naree am la koy tax a am xel da cay fattu. loolu rek moo ci nekk xanaa di ñaanal ñi nga xam ne yàlla dogal na am ay gaañu gaañu yàlla yëkkati leen ci jàmm te nag euh, yàlla yemale ko foofu te it ñuy ñaanaat nag bu ndigal li ñëwaatee ñu gën a takkatu gën a xam ne nag euh, euh, liggéey Sëñ Tuubaa rek ka kon loolu rek mooy wax ji wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sant nañ leen baax gërëm nañ leen ndax rafetloo nañ lool lii ngeen def nii ndax lii bokk na ci li nga xam ne ak soññe la jërë ngeen jëf ñu sant bu baax alhamdulilah ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay sa waaw mbir mi de sant yàlla ndax ñun ñëpp dugg nañ ci ndigal suñu borom dama doon liggéey Sëriñ Saliou sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou mooy suñu wasila ñun ñëpp ci moom lañ demoon doon ko liggéeyee ni dem def na dem nañ ci jàmm ba liggéey si jàmm ba mu yeewi ñu ñaanal ñu nañu sëñ bi yeewi na la yéen ñëpp mën ngeen a delluwaat si jàmm ak salaam te ngeen def ndànk ñu fanaan ba bët set oto bi ñëw ñu xëy si dugg bi ñëwee ba ngayu maam la ñaari moto ñoo nekkoon suñu kanam bu gudd forcé ci kaw moto yi léegi na jéem nañ naxante oto bi ba sonn mais mënu koo téye mënu ko maîtriser oto bi nag léegi daal di saaraan daal ci garab gi dañ daal si garab gi nag muy ñëw man mii ci kaw laa nekkoon mais nii laa def di ñëw di ñëw di ñëw ba daanu ci suuf yàlla ma dimbale waaw sama soxna ak sama doom yëpp si biir nañ nekkoon ñun ñëpp benn nañ ab quartier la Lansar mais liggéey sëñ Tuubaa mooy taxoon chaque année dañ koy def te fas nañ fas nañ yéene chaque année dañ koy defaat bu soobee yàlla mais nañ ci li nga xam ne moo di na am ne toppoon na ko di daw cent trente mais mënu ta fexe ba dab ko est ce que tam loolu yéen a wax ak moom comme nga xamante nii moo di euh, Cheikh mi nga xam ne moo yoroon oto bi boo xoolee ay atam ëppagul li nga xam ne mooy fanweeri responsable boobu nga xamante nii maanaam tegu ci kawam yéen ñi nga xam ne yéen yaa ko fare ay mag tam est waxoon ngeen ko comme ça muñ sàmmonteeg li waaw xam nga loolu moom avant ñu fay jugee lañ ko wax parce que bañ bañuy bañuy ba ñuy kam am na am na ndaw yoo xamante ñoom loolu mooy seen liggéey ñu ngi ci kaw yoon wi naan ñu ndànk ndànk ndànk ña mais maa leen incha allah rabbi dañuy dem boo am ñaari moto ñoo nekkoon ci kanam wax naa la ko sànq bëggut a a a forcé moto yi mais li mu doon daw yàlla xam ne du nekkul benn vitesse bi sax a forcé si moto yi looloo ko daaneel looloo daaneel oto bi mais bu dul moto yi kon dañuy loolu moo daane oto bi mais moom jàmbaar la waaw. daan ngay tàggoo Cheikh. waaw xanaa santar rek santar rek te xam ñun ay ndawi Sëñ Saaliw lañ ñu koy liggéeyal. maa ngi lay delloo ziar alhamdulilah waaye yëf yi de ni mu amee moom xam naa daa daw ba mbëkk ci garab ñu daal loolu lañ jot a fekkee metti na lool nag waaw ndax ñi ci gaañu bari na lool waaye nag yàlla dogal na kenn faatu ci. maanaam oto bi dafa ña dajeeg oto wala maanaam nan la def ba daanu Sëñ Saam. dajeewut ak oto dajeewut xam naa moto yu mu gi kon dafa mbëkk garab euh, maanaam accident bi daal di am. ci la duggoon ak soxnaam ak ay xale yu ndaw ak samay doom yëpp ci ci oto bi lañ nekkoon. oto bi nombre bi nga xamante ne nii moom laa la jëloon boo ñu ci doon dellusi dal ci li nga xamante ne moo di ak tënk lan lay doon. loolu yeboon na moom wax dëgg yàlla yeboon ndax yeb na bagage yeb na ay nit mm, dëgg rek moo neex yàlla waaye ku jógee xel ko moom wax dëgg yàlla sa xel du dem ci lenn du jàmm kese loolu loolu moom noonu la demee. gannaaw bi nga xamante accident bi am na ak tam ngeen xaar li nga xamante ne ni moo de di a pompier national ndax teel nañoo ñëw wala. xaw nañoo yéex a ñëw waaye nag teewut it ñëw na jël nañ ñëpp moom ñu ngi leen di faj instant yi waaw waaye nag eh, ñi ngi lancé appel ñëpp nag te xam ne liggéey lu baax rek ñu tax a jóg ndax it bari na ñoo xam ne seen doole jotul seen gannaaw ak yooyu ku ci mën a jàpp nga jàpp ci waaw te yàlla rek tax nag bu am dara rey nangam nangam. mu mel ni am na ñu bëri ñi ngi nekk fi nga xamante ne moo di hôpital bu Ndamatou ndax tam euh, malade yi ci hôpital bu Ndamatou rek fi la nekk wala am na tam yeneen malade yoo xam ne jàllal leen feneen. bu bëri parce que am na ñu nekk Ndamatou am na ñu nekk Janatu ñu may woo léegi fa laa bëgg a dem moo a dem jaar fa xool blessures yi nga xam ne maanaam moom lañ fi nemmeeku boñ ci doon dellusil tey maanaam ñan ñoo ci gën a mettre ay tànk la wala ay loxo la wala ay lan la. Euh, tànk lay tànk la ak loxo. Euh, ak it tiitaange it am na ci ndax euh, xam nga nit ku tiit am na ñoo xam ne dañoo tiit sëg ba seen cardiaque monté wala tension monté mën naa ko wax parce que ñooñu dara dal leen bu ma fa yegsi mais instant yi naa la ñoo gën a feebar sax ñi ñi gaañu. bu ñu waxee oto bu daanu maanaam oto mën na daanu maanaam soonu oto tam mën na daanu ba noppi. yëkkatikuwaat ndax oto bi dafa daanu sóonu wala oto bi dafa daanu ba yëkkatiku. bu daanu woon ba àgg musibam waaye garab gi ko téye daa sóonu rek. boo àggoon musibaam ndax ay xale yu ndaw ci nekkoon même bi ñu yéegee avant ñuy dépassé xale yi maa leen yëpp dugg leen ci biir parce que loolu wóorul li nga ci hôpital accident boo xam ne ma nga xew ci ñi nga xamante ñoo demoon nga liggéeyal yi ki nga xamante moo di Seexul Xadim tatam ñu jaaree ko ci buntub ki nga xam ne moo di Serigne Saliou Mbacké ak jëwrinam ji nga xamante ne moo di Serigne Cheikh accident bi nag am fi nga xam ne moo di tolloog ngay maam ay blessures yu bare bare am ci gis ak ñoom waxtaan ñoom bokkoon nañ ci li nga xamante ne moo oto ñu ñëwoon nag fi nga xamante ne moo bu Ndaamaatu ñi nga xamante ne maanaam am nañ ci ay gaañu gaañu ñu di leen ñaanal suñ borom delloo leen ci li nga xamante ne seen sago kon lii lañ leen jëlaloon fi nga xamante ne moo bu Ndaamaatu suñ borom mi nga xam ne mooy borom jàmm te ku nga am jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm incha allahu rabbi sawru